yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunu boroom def koo bëgg lool di dalal xelam lool di ko dëgëral lool mu dund ci jamono boo xam ni jamono bu metti la woon am at mu metti ci moom ba boroom xam-xam yi di ko tuddee amul usni atum njàqare atum mitit te mooy at mii nga xam mi mooy atu fukkeel benn wala fukkeel ak ñaar ginnaaw bu ñu ko yónnee at moomu nag ci la ñàkk waajuram di bàyyi tëxam di abu taalibin mi nga xam mi nekkoon na dëgër lay ci moom nekkoon na it wéeruwaay bu ñu wekk ca Quraysh ñuy ruse ak di ragale Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci bay taxam boobule yàlla dogal ci at moomu lañ ko ñàkk ñu naan déete waay jàmbaaram ja di soxnaam sa nga xam ne moo nekkoon moom itam di ko jekk ci genn wet ci wàllu alal nekk financier bu am doole te nit yàgg naa wekk doomu aadama ñaar ngir ñaar yooyu ngir dëgëraay ci daraja walla ci alal lu ci ne yonent bi amoon ci mag mu toll noonu nii di Abu Taalibin ak Xadijatu bintu Xuwaylidin yàlla dogal mu ñàkk leen ci at moom le amatul benn weeruwaay budul borom bi subhaanahu wa taala te mu doy nag yonent bi jóge fa benn bis di seeti ay bokkam yi nekkoon taayif ngir mu man fa am wéeruwaay ak dëgëraay bi mu amoon ci ñaar ñooñu waaye lam fa fekk bokkul ak la mu doon seenu mu fekk fa ñoo xam ne ñoo yées Xurays ci bañ jëmmam ju tedd jooju ñu teeroo ko ay xeer ak ay yuux ak xelee ki xaj ba xaañ jëmm ju tedd jooju kon foofa du walluwaay kon dara desul lu dul muy ku ñuy reetaan ku ñu naan amatul fu mu jëm amatul luñ koy ragalloo luñ koy ragale amatu ko ci diggante boobu nag la mbër mu mag mi ko fi indi woon di mawlaana subhaanahu wa taala jóg ay pexeem ak darajaam woolu jëmm ju tedd jooju muy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam woolu ko yabal jaam bu ñuy wooyee jibrail ni ko mu jëleli ma muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu fekk ko ci kër sayyidatina umu aani janba masjidihi masjidi makkal mukarama borom bi jëlee ko foofu àndandoog jibril ci kaw daaba jo gaaw te rafet daaba joo xam ni wax nañ mi gaawaay ba li nuy natt ci gaaw léegi danuy wax naan barab sàngam wala nangam moo gën a gaaw kàddu waaye kee nag moo gën a gaaw bët la ñuy wax ndax fu bët bi tegu rek weem wa dafay daal di tegu kon kookoo gën a gaaw kàddu moo gën a gaaw lu ne mu jëlee ko foofu ci masjidul haram mu jaar masjidul aqsa yeew fa daabaam ja fa yonent ya daan yeew seeni daaba dugg julli fa rakkaam ya te foofu mooy wàccukaay bu jëkk bi foofii nag la ko borom bi subhaanahu wa taala yéegale mu jege ci al rihla al ardiya bi nga xam mi min al masjid al haram ila al masjid al aqsa jëm léegi ci barab boo xam ni dana fa gën a jige boroomam jegeñaay bu àgg ci xaaba xaw sëy ni aw àddina lu ko gën a jege yàllaa xam jegewaay ba waaye yonent bi jege na ko borom bi subhaanahu wa taala <clears throat> romb na ci yoon wi ay gaay yu baax kon la ko yàlla ni woon subhaana alladi asra bi abdihi laylan min al masjid al harami ila al masjid al aqsa danaa la fi woon nag léegi ay aayaat ay kéemaan kéemaan ga day dara jiituwu ca won ko ñu faatu woon bu yàgg ñu mu daan dégg te leen ñu demee ni ay yonant yoo xam ne jiitu woon nañ ko muy na Adama fekk na ko ci asamaan si mu jëkk jot mu tatagal ko yaatal ko laaj ko ñu wax ko mooy kan ñu ni ko kii mooy ki nga xam ni sunu borom yónni na ko ci jaam ci xeet wi mujj ci xeet wi mu jàmmanteeg moom jox leen teeg moom ay teraanga jóge fa nag wéy romb atamaano ñaareel beneen yonent bu ñuy wooya Isa Isa bokk ci yonent yi mujj a ñëw mu jaar ak moom fa mu jaar ak ka mu jëkk romb di Seydina Adama ci tatagal gu ñu ko war a tatagal ak teraanga ju koy jox mu jaamu yàlla ak moom jóge fa romb atamaanu ñetteel romb fa beneen yonant bu ñuy wooyee Aaruna ak Yaxya moom itam ñu def lañ seeni moroom def jóge fa romb Idrisa ak ñoom Yuusufa ak Seydina Muusa ku ci romb na la fi barab waaye fu fi romb rek ñooña danañu laaj kii fi jaar mooy kan ñu waxal leen ni ku ñuy wax Muhammad la ndax yónni nañ ko mbiit waaw waaw Jibril ni dañ koo yónni ci xeet wi mujj ñu barkeelu mu wéy ba romb maamam baayam ki ñuy wooyee abul anbiya seyduna ibrahima alayhi salaam ca asamaan su mujj sa yonent bi wéy na nag léegi romb ñoo ñëpp dara desulu dul wuti ki nga xam ne nii moo ko woo te mooy Mawlana subhanahu wa taala lu ko doon doyee yàlla moo xam waaye bokk na ca jox ko ak jaamu yàlla gu rëy gu ñuy wooye julli nan ngay xamee ni kon julli màgg na <clears throat> wayaas wu réyee nii jaar-jaar yi mu jaar ak ñi mu romb niñ ko teerale ak niñ ko gàttandoo ak loolu yépp fu mu jëm day wujji boroomam lu mu fay wuti day jëli ndigal te dag ndax bu njëkk day ndigal yàlla danaan yebal Seydina Jibril ni ko neel Muhammad sallallahu alayhi wa na def nangam baana bàyyi nangam kon loolu amoon na bu te xam ngeen ni borom wa taala lu mu yoral boppam lay wax màggaayu loola dafay junj màggaayu loola lépp loo xam ne ni dugal na ci loxoom loola day wuuteeg moroom ya comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ko yàlla digal yëpp yu bari bari julli am na ci jagleek boppam boo xam ne nii lenn du ko ca fekk te mooy mu ni du ko jox malayika du ko yónnee diggante dëkk ak dëkk waaye dañuy jàkkaarloo jigañante ba nga xam ne dana doon jige goo xam ni kan nga ko jigeñal la koy wax du ko nattable la nga koy wax du ko jaawale mu jox ko julli googa muy julli yu juróom mu joxoon ko ci juróom fukk waaye juróom fukk nag diis na gan bi mu rombaatee bi muy waaja a ñibbi romb yonent yàlla Moussa alayhi salaam ci asamaanu juróomeel daf ko laaj lu la yàlla digal mu wax ko ko mu ni ko loolu bari na sa xeet wi attanuñu loolu demal mu wàññi moo tax Mawlana Cheikh Mouhamadul Fadil mi nga xam ne daa feeñ ci weer wi te daan baaxoo waxtaane mbir mi daana wax ni dafa romb ab xejjam Moussa da di ab xej bi ci yàlla mooy ko sañ ci yàlla moo ko ni dellul mu wàññil la ko mu dem mu wàññi di ko wàññi ba mu doon juróom muy lii nuy def tey juróom yooyu nag yool bi nga ci doon am ca juróom fukk ya mooy wéy ba fii may wax ak yow lim ba wàññiku na waaye yool ba du wàññiku benn yoon loolu ci baaxu yàlla la gu mu baaxee ummatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk mi lan ngay dégge ci wow voyage ak li ko tax a jóg li muy tekki mooy li ko tax a jóg muy julli rëy gi mu réy ak fi mu toll yàlla amul lenn lu ko jige waxuma la lu toll ni moom de du genn jaamu yàlla goo xam ni jige na ko noonu ko yàlla jëlee ci loxol boppam jox ko yeneen yonent bi dénku ko kenn noonu la julli mel ci biir jaamu yàlla yi mooy jaamu yàlla goo xam ni kenn mënula koo defaale ak lu ngeen jigéen a jigéen doon ndey mbaa na nga doon baay mbaa nga doon sëriñ comme ci mën doon mënula koo defaale loolu moo di fardu ayni boo xam ne nii moo gën a tar ci fardu ayni yi ni mu ci wéete woon ak boroomam ci ñàkk ab digale noonu la mel ba ci kaw suuf amul digale du kenn koo xam ni mën na laa julliwaale du kenn koo xam ni mën na laa defal lenn loo xam ne loola dana taxaw taxawaayu julli du génn jëf boo jëleen asamaan ak suuf li fi nit ñi am ci gànjar li fi am ci valeur nga joxe ko ci yoonu yàlla du tax nga mën a fay genn tisbaar déedéet mënu koo am ndax genn jullee ngi goo xam ne ni xaajalewul xaajaatalewul àgg ci jullik tisbaar muy ñaari rakkay fajar ki ñu yónni woon ci ñun di rasulullahi nee na xayrun min ad-dunya wa ma fiha nee na ñaari fajar moo gën addina ak li ci biiram segam ku ndaw kooku moo gën addina ak li ci biiram mase ku mag kii ñuy wooyee julli yu juróom dara du dox digganteem ak moom amul lenn loo xam ni mën na la ca remplacer yeneen jaamu yàlla yi sax léeg-léeg nga dem ba mu yàgg ñu laaj la ca alal da koo deful ñu ni waaw mu ni defeel nangam mel ni koor nit dina ñàkk a woor tey ko ñu ni ko nañ ko alamaan lu ñu koy alamaane ñu ni na leel ay miskin mbaa mu woor ñaari weer waaw bis bu nekk nga joxe juróom benn fukki miskin ñu ni mën naa fay bis boobu nga tey bañ koo woor waaye bu dee julli nag du benn rakka boo xam ni boo dundaleen miskiine àddina bi yëpp mënu koo fay loolu kon mooy wone ak màggaayam mu ne aj farata la waaye li muy doon doon farata boo ko defulee kenn du la rey lislaam bu taxawaloon jaaseem it kenn du rey nit ko ajiwul ndax lan lay teemu aji ngant la moom rek ko xam moog yàlla kon ki ñu atteloo zahir du ci dugg da koy bàyyee yàlla ba mu àgg fa moom waaye julli nag moom duñ ko bay te duñ ko may ngant ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mayu ko woon ngant mu toog mu yónneeku ko loolu moo tax keneen nit amul sañ-sañu toog nit du julli walla ngir lan dinaa def lu ko remplacer wala dinaa ko wax mënul am mooy rasul amri wa imaduha li ñu tudde diine lépp bopp ba moo di julli te lépp nag riñaanum yonent bi wane na ko ponk gi ñu ko ponk wane na ko gis nga bu ngeen dee julli ci jumaa ju mag jee ñuy wooye jumaay Tuuba am na benn ba boo xam ne mooy bi ubbi woon jumaa ja te alhaaji Mouhamadul Fadil bind ko ba boobee danga ca dégg mu ni julli ci biir diine mi ngi mel ni bopp ci nit saa boo ñàkkee bopp jàpp ma ni médecin dees na ko seeti ba bu dagg kenn du seeti médecin julli itam diine ji mu génn amatul defar amatul baaxal baax na waaye déedéet baax na waaye du julli mënta baax ndaxte loolu mooy bopp bi mooy ndeyu mbind gi mooy baax leneen soog a baax Mawlana Cheikh Souaïbou Mbacké radiyallahu taala anhu dafa bind ci benn téeréem wax ca ni bu lay misaal julli ni mu doonee farata ak ni mu nekke njiitul jaamu yàlla yi ba bu ëllëgee bu yàlla yi jàngaloo waa ji téeréem bii ñu defoon jëfam nga xam ne li ñuy def lépp yàlla nga koy bind mu ni bu ñu bindee lépp nag bu ñu koy liir bala ñoo nangoo liir téere bi day fekk ñu xool ba xam jullee nga ci am bu ca nekkul booba téere kenn dootu ko liir kenn du ko jàngati xamuñu def nga lu baax xamuñu defoo lu baax dañ koy lem tànni la waaye lu yomb dégg la mbokk mi demal ci waa ji gaayu mu génne carte segam bindal la ci ab na def milliard na def téeméer yaa xam waaye bu ca signature amul boo àggee ca banque bi doo génne dara doo génne am ba pare ñu soog a vérifier di continuer yi liir ndax ke ko jox moo def signature bi ndax signature bi baax na ndax li nga li ñu marqué mi ci compte bi wala yooyu foofu la xool bi am xool bi foofu la waaye ab bu signature amul amul xool kon bu julli amul ci jëf amatul xool ngir màggaay ga te màggaay googu yëpp jàng ngeen ko te dégg ngeen ko ci voyage bi yonent bi def ngir moom kese leneen lu mën a doon feecam néegam lay tëdd ñu ne ko yàlla farataal nañ ci yéen koor ñu ne woor nañ bu suba yàlla farataal nañ ci yéen aj dem leen aji yàlla farataal yéen ci asaka dem leen asaka lu ci ne jibril naan cëpp rek jox ko aaya ni ko sa borom nee na fii nag yàlla daf ko ni kenn du la ko wax maa la koy waxal ndax sama yëf la naka jekk noonu la yàlla jëfe yéen même asaka bi muy séddale asaka li muy doon doon lu jullit yi moom ak miskin yi waaye yàlla tuddal boppam ñi mu bëgg nga jox ko ba muy tudd miraas yàlla bëggal boppam tuddal boppam ñam bëgg ñu jox la ko kon li mu tekki mooy yi gën a dëgër yépp yàlla du ko yóbbante da koy joxal boppam directement kon lii di mbokk yi moo nekkoon ci wayaasu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wayaas wi jaaxaloon àddina bi mu ñëwee ñoom ñëpp dañoo kontaan ree ñoom noonam yi ñoom Quraysin ndax dëkk bi mu wax ni ca laa dem ay weer lañ daan dox ngir dem ca mu tëdd génn guddi xëy ni dem naa ca loolu dana neex lool noon yi ndaxte nag lañ doon bëgg am na ñu bari dañ ca am murtat génn ci diine ni kii li muy wax kenn xamu ko ba abu Aboubacar ñëwee ni wallahi bu waxoon lu kawe lool sax danaa ko dëggal ñu ne ko kon yow de Aboubacar Saddiq radiyallahu taala an mooy ki dëggal yonent bi ci lépp lu mu wax mooy ki dëggal yonent bi ci lépp lu mu jëf du wax kay fa du wax lima day gëmm rek te def te loolu lañu ñu digal ci bu kilifa diglee rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam boobu ak wayaasam woowu loolu yi rek la fa doon jëli ak la ko yàlla woon ci ay kéemaan yu wane ni mën naa lu ne mën naa lu ne ndaxte borom bi subhaanahu wa xanaa démb la ñuy werante ndax dem naam demul ndax lii mën naa am mënta am waaye jamono bii ngay tooge fii di wax fii ci jàkka ji ñuy wooyee jàkkee Masaalikul naan benn waay nekk ca Chine wala mu nekk ca New York yam ci yéen ci wax ji kookee de jamono boobu bu loolu xewoon lu ñu werantee ne yonent bi dem na asamaan ci génn guddi ndax tey kaddoo ngi dox lu gën a gaaw loolu ci genn guddi wala ci yenn waxtu wala ci benn seconde ki ko man nag ku ko def kooku yàllaa ko def kon yàlla mi bind ci man loolu wallaay moo ko dàq looloo taxan boroom xam-xam bu mag ba ba muy tagg Mawlaana Cheikhul Xadim radiyallahu taala da ko doon wax ne la taajubul asbaabu anhu aqiqatan in taaxa fi zulumatiha man taaxa Sëriñ Tuubaa daal li ma yéem ci moom mooy sabab yi mësta muur bëtam moom yooyu nuy door a gindeeku naka jekki daa gindiku woon ni sabab amul lu dul ni borom bi subhaanahu wa taala mooy ki koy tegal rek waaye day xam ni kiy def dëgg-dëgg kooku mooy yàlla yàlla rek mooy def yàlla rek moo man yàlla mooy amal li ci diggante bi ay sabab la te jàngal nañ ko ci wayaas bi jàngal nañ ci sabab yu bari yonent bi la yàlla soxla moo yow yonent bi bu ko yàlla soxlaa ndax amul kàttanu ci xet yonent bi rek mu ñëw fi moom ci saate waaye dafay won nit ki ne booy tukki da koy waajal bi ngay wut ab yóbbal da wut waruwaay danga laaj ku xam am na ku xam jibril la am na waruwaay baru alburaax la am na fu mu jëm ci borom la ñett yii boo composé ab tukki mu koo jàngal doomu aadama ni ku bëgg tukki noonu ngay def faaw nga jaar ci ay sabab kon lépp looy def faaw nga boot jaar ko ci sabab waaye lay xaqiqa ba ak lay dëgg-dëgg mbir ya kenn kee mooy borom bi subhaanahu wa taala mooy ki nga xam ne ni faalu li maa yurid moom rek a man moom rek a mën a def waaye kon li jaar ay sabab rek la kon nag nañu lu bu nit gàtt yitte lépp loo bëgg jaaral fañ koy jaaral rek daal koy am amin wu rafet boo ko jaaree feneen nit mën naa am doo am wut nag ba wut jeex wut yàlla moo ci gën a wér boo ko daal loolu mooy tomb bi nga xam bëggoon nañ koo boros ci xew-xew bu mag bii di laylatul israi wal miraj mu ni ñaari voyage yooyu muy rihla ardiya wa rihla samawiya te bu ci nekk yonent bi def ko ci benn guddi ci ay laxasaat yu néew lu ñu ni wan nañ ci jaar soog a dénkaane sunu dénkaane bopp yi nga xam ni dañu koy laabirante ci sunu biir yooyu mooy lan <clears throat> bokki jullit yi noo ngi dëgmal xam ni dañ koy tudde ni ab xëccoo la te waran war a tudd noonu ab tànn la loolu la ñuy wax mooy kan la ñuy tànn mooy ki ñu wax ni dañ koy jox sunum nos ngir mu jiitenu yore sunu àddina waaye yore waale sax sunu diine ndax léeg-léeg mu rëq moom diine ji am ay rëq-rëq te ci moom lay jóge mbaa am ay baax baax ki moom lay jóge kon kooku bu nu signé ni jàllal ci kanam def joxe nañu sunu responsabilité bu wér boo xam ne bu waaj jubalee alhamdulilah danañu am tuyaaba ju baree bari ci def gi nu def nit kuy jubal waaye bu waaj dëngalee nu am bakkaar bu rëy ci teg gi nu fi teg waaju dëng kon nag mbokk yi dañuy tànnal sunu bopp ndax nit la ñuy tànn wala ku nu may tuyaaba ëllëg la ñuy tànn nga dégg ko ni politique. agul alaaxira juum nga doomu aadama bi mu ñëwee àddina lu mu def àddina ñu ngi koy bind ci ab téeréem li nga xëyee ba jant bi so amul leen lu muy tëb te du ko bind loolee muy tëb nag bu ko bindee ëllëg di nga ko jàng sa kanamu boroom bu dee lu baax la xam nga bu dee la cere xam nga kon nag liñ luy bëgg a bindal ci lii di ñëw nan ko seet te nu dénk sunu bopp di leen dénk nuy def ndànk nanuy def ndànk ci bëgg di def ndànk ci bañ yonent benn ko digaloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na ngeen di bëgg ndànk ndax amaana li di bëgg bis dina ñëw mu doonum noonu waaye na ngeen bañ dara it ndànk ndax mën naa am ëllëg mu doon ab xarit xam ngeen ni loolu li muy tekki nit ki bëggoon ba yàgg mu bañ la mu cay jural bis bu ne gis ko ci télévision te demagul fa yàlla da dégg koo xam ne dañu koy bind li xale yi wax waar am na lu mu waxoon daaw tey ñu dégg ko muy wax lu safaan ak moom ñu daal di indi la mu waxoon daaw segam yaa ko man masa yàlla segam gaayee man loolu masa yàlla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 Mbaaw gaaw leen gaaw ngeen woote 77 251 04 05 Tawfekh Production le leader dans son domaine. ndax ah, am lépp tawfeex ci sëriñ bi mën may. gën noo gàtt noo tawfeex ci sëriñ bi.